maa ngi tudd Insa Coly man maay euh, visilu Alain Console bon incendie bi bu muy démarré yëpp sama kanam la dama nekkoon ki bunt bi subitement ma gis euh, flamme bi di envoyé en haut laa dem woo sama patron bi ak euh, soxnaam ma génne leen ma leen vraiment moom patron yaa am na am na am na flamme buy génne kii labo bi génn leen ci biti ñoon noonu lañ génnee ak pat ak jabarom ak xaj bi man maa tey xaj bi sax génnee leen ki biti ma leen génnee ki biti instant boobu la patron bi dem bés sapeur dem woo leen pour xamal ne vraiment sama kër gi mu ngi takk sapeur bu muy intervenir vraiment c'était trop tard waaw sapeur bu muy intervenir c'était trop tard bi sapeur ñëwee def na lu ñu mun day fekk déjà moom parce que magasin bi kër Alain lépp jël nañ fa instant boobu non non loolu loolu informa loolu du du dëgg loolu du dëgg ku wax loolu peut fekkee woo fekkewoo woo mbir mi wala nekkoo fa parce que trois heures du matin soo xoolee aussi tamit ñi si dox tamit bariwul waaw ñun gardien rek rek rek ñoo mën a wax nit li am mais ku leen ne kër Alain sama kër patron ku ne làkkul da ngay wax la neex waxu daanu si kaw la waxu daanu sareet la kër Alain néegam dafa takk ba mu jeex takk benn bagage génn wu fa waaw deuxièmement Saloum aussi pareil waaw kooku oh, ki wax loolu waxul lu am waaye xam nga ban journal moo ko wax mais juum na hmm. lépp lépp lépp lépp dem na lépp dem na néeg bi dara desu fa lépp dem lépp dem lépp dem waaw loolu bon coupure courant bi lu koy indi moom kenn munu la ko wax xëy na peut-être problème courant bi la rek problème courant lañ si jàpp moom moo indi problème moo indi problème loolu kon kër gi chambre bi lépp a dem dara desut fa benn bagage génnu fa loolu ki ko information bi xaw ma kan moo ko joxe mais wax na loo xamante ni du dëgg ngeen baal ma ki kaddu bi quoi amul. police bon yaakaar naa war nañ def constat bi parce que bon xëy na bi dina leen woo waaw def constat bi. bon tàkk-tàkk bi lu ko indi li ma la mun a wax problème courant la. man noonu laa mën a jàpp ko problème courant la rek mën a li ma mën a wax nit ñi bon vraiment na seen lekk jël ay motukaayam xam nu ñu nu muy nu muy installé courant bi parce que vraiment lii métti na métti boo xamante ni jégg na dayoo loolu la am li may lancé. bon takk-takk bi muy commencé à 3 heures du matin 3 heures du matin la takk-takk bi commencé dem ba 6 heures du matin. mooy sa support bi ñëw na mais dafa xaw a yéex ah, moo dem moo jël Jakarta dem woo leen waaw ah, moo dem woo kon kooku ku ne këram këram takkul xam nga vraiment loolu yenul maanaam waaye nañ wante dëgg loolu moom yenul maanaam ça tient pas debout bon je, je m'appelle Insa Koli je suis le vigile de la maison euh, L'incendie s'est débuté vers les coups de trois heures du matin. Bon, à ma grande surprise, je me déplacé pour regarder en haut. J'ai trouvé la fumée à enfuir la maison. J'ai appelé mon patron dans la nuit, tapé la fenêtre pour lui dire qu'il sortir qu'il le labo qui a pris le feu. Bon, à ma surprise, le patron s'est sorti avec sa femme et le sien. J'ai pris le sien en main, on l'avait sorti. Le patron en même, en même a pris le Jakarta pour aller à la sapeur pompiers pour, euh, pour les annoncer le problème. Depuis qu'ils sont venus, j'ai trouvé que vraiment bon, toute, euh, toute la maison et les cinq, euh, les cinq euh, magasins ont pris feu. C'est en ce que le sapeur a commencé à éteindre le, les flammes. Oui. Non, ce sont des fausses informations. Ça, ce sont des fausses, les fausses euh, informations. Parce que la personne qui n'était pas dans les lieux, tu ne peux pas dire les, les, choses Nous, on était dans le lieu, je suis visible de la maison. Bon, c'est moi seul qui peux donner des informations très claires. Mais le reste, ce sont des mensonges. Bon, le mot, mais vraiment, ça, c'est pas du tout sérieux. La maison de Alain a le feu. la la première chambre et le salon rien n'est sorti là-bas waaw ça je vous infirmer je peux vous affirmer ça. oui il y a beaucoup de matériels qui sont complètement abîmés. bon pour l'instant on peut pas dire parce que peut-être bon nous ce qu'on peut penser c'est le c'est la première chambre a pris rien n'est sorti là-bas rien sorti. rien n'est sorti. Et une partie de son salon. La télévision en fait partie, tout, tout, tout, rien n'est sorti. Euh, la police, bon, la police peut-être ils sont venus parce qu'il y avait du monde la nuit. Bon, peut-être quand vous demandez le patron, sûrement, la police va venir pour faire le constat. ce que je peux vous dire, vraiment, euh, les, on doit être veillé sur euh, les certaines choses parce que vraiment en pleine nuit, le courant qui, qui manifeste comme ça, vraiment, bon, ça amène des problèmes. La, la Sénélec doit, doit prendre les mesures. Euh, ça, presque, je peux vous dire, ça fait presque 5 de temps. Ça a à trois heures jusqu'à 6 heures du matin. ce que je peux vous dire, c'est justement pour vous dire vraiment, c'est la Sénélec qui doit qui doivent être le concernant les courants. L'installation surtout. Oui. L'installation surtout. C'est important.